Dawa, na ngeen am seenu moto ah waxuma yooyu de yooyu kii na yeneen yi amul ah naata la ma xool. Jimbory yow yaa yaa ya, yow Jimbory dëggantaan nga dëgg de yow. ah lan moo tax nga jóge Arboura. non dara dama dellu. mais Jimbory ak ni nga wax yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyi naa Feeling Dakar. non non ma fa dellu. respecté wuñ ma. wala ma fontoo lool mosuma ko. non non non non di boole loolu vidéo yaa fi rek vidéo yaa ngi fi. wàññi ko tegal lool mosuma la wax lool. léegi Arboura ak seen nguur ak seen li ñu amee visibilité. waaw. ak li ñu ana jaaj naa da fa bàyyi. non xaw de en tout cas man daal dellu naa sama kër. Aziz Ndiaye nag sama xarit la ku baax la Aziz. léegi la mooy fay bi la fayatuñ la wala lan la. non dañ may fay normal man maa bëgg a dellu rek. ah kon xanaa yow yow yow man man man ci bëri ma xamatuma la. non xanaa dañ laa jox xaalis dañ laa jox xaalis. kan moo may jox xaalis. ah xanaa waa Feeling Dakar dañoo. mais Feeling Dakar Feeling Dakar bu jimboori la. waaw wala du noonu. xanaa bi ngay def xamoo ko woon. boo daan dem luñ lay wax boo mën a dem boo ne Feeling Dakar dañ naa la ana jimboori wala noonu. waa waaw waaw jeex na. Feeling Dakar baax na moo ko sama man sama maa ah bi ngay dem waxoo mais bi ngay dem waxoo loolu. mais sama kër la non bi ngay dem waxoo loolu. sama waaw mais awma droit dellu sama kër. mais bi ngay dem waxoo dañu laa téye ba sonn. ji boori bul dem yooyu yëpp yooyu yëpp ji boori bul dem. yooyu yëpp paase na non alburax ñu baax baax la. Baye Ndiaye ku baax la ña fa ne ñoom ñu baax lañ mais dama dellu rek. dellu sama kër aay. mais mais déedéet soo soo delloo day mel ne alburax liñ lay fay Aziz li mu la fay baaxul ak Baye wala. a ah, en tout daal dellu naa daal Feeling Dakar. léegi añ jaaj naa. non bu ma laaj ñooñu. dama laaj leen mais nag gars yi nag dañ ne woon da ngaa fay est-ce du loolu dama. da fayoon bi nga demee woon foofu. non man yow xool nga ma rek. xool ma rek maa fay fay ma laaj ko at laaj ko sénégalais yi. man li may def amul fay. mais dañ laa yokkalaat dëgg rek laay wax. mais dañ laa nga dem wala nga dellu wala. non xaw ma dellu naa sama kër daal. mais yow man man man man. mbay mais weer wi la. mois de mai dellu naa sama kër wala lool dafa aay. mais eh, Djibory man. mais mbay lii lu mu la. mbay nga Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye. waay dellu naa sama kër loolu la rek Aziz nag yëgu ko mais delu naa sama kër daal. ah loolu yëgu ko bàyyi na. xaw sama xarit la mais dellu naa sama kër daal. mais Baye Ndiaye woo ko ne ko bàyyi na. ah waaw Baye kay moom yëg na ko de. mais lan lan moo da ngeen xuloo non xuloo ma kenn xam nga naa sama kër daal. léegi jiw léegi yow ana jaaj na. waaw déggoo ma laaj ma fa ma léegi yow ah, nii nii lan nga fay defaat Sëriñ Dakar. xaw ma de bu ma demee di ngeen ko xam. wax ko waa adduna bi rek. comme comme tab rek. comme gis nga moto bu bees laa waa kenn nii. hee. waaleem ko jënd. kañ. Ah. dellu wax nga delluwaat wala. waxuma ma dellu waale yëgul may dem ak kii mais dama ne la lii waaleem ko jënd. kañ la ko jëndal. ah waalee ma jëndal nu la ciy wax date yow da nga bëgg xam kay am nga. gis nga ko nii. am nga lii du moto coomo. mais amoon nga moto. amoon naa moto mais du bii. non bi nga yor moo dàq wi nag ah waaye mënoon na laa ji seet seetal ko yamal ci wax. mais eh, waaye mënoon na jëndal mu xam nga bi. ah mais ñaata la ko Baye. waaw yow man man Jimbori man ba tey dafa mel ne man Jimbori ku bees nga si man ku bees ku bees bi <laughs> nekk nii. waaw jarul ngay bees loo bees ak di màgget. dellu naa sama kër. man de man man jaaxal na ma de affaire yi waa jaaxal. Ah, laa jaaxal naa la dellu naa sama kër waaw. at bu raak ubbi ubbi télé. ñëpp bëgg faa dem. parce que télé yi fayatuñu. waaw. ñu indi kaar kaar kaar buy jaay ay millions. pour liggéey. waaw rési. def télé. waaw nga bàyyi fa loolu dem. mais man albarax daf maa seer man. man la jimboori. wala du loolu. waaw man man man jimboori bu ma sonal. ak li nga xamee lambu. ak li nga xamee. non lamb moom dama ko naan. waaw muy doon sax wax. waaw mais doo toog foofu liggéey ci làmb yi non déedéet nga buñ bëggul ma liggéey làmb na. mais nga waxtaan ak ku ma gën a xam làmb new fi per Ngañ Jaañ laa fi bàyyi père Jaw dégg nga ah, ah, naka la dina Mbaw xam ñooñu laa xam ni ñooñu moom daj dëpp gi lañ mais à part ku dul ñooñu ah ay père Mansour Diop ñooñu mbëri lañ tafaagay mais man dañ daan bëre di ma fob di ma leew di ma yóbbu ci làmb lu ma la wax ci làmb mais dégg naa nag génération paa yi paa yu mag yëpp paa yi fi nekk naan ay man la kii wax yëpp dégg naa seen génération dañu daan daanu rek non xaw de en tout cas làmb daal kenn gënuma koo xam falaa yem waaw ah, kuy bëre kay yaa di dan? mais per per dugal per dugal fekkee nga bi muy jëri non per dugal man ah jàmbaar la woon de mba pat de moom danaan daan rek jàmbaar la mais ara nag baal paa bi jàmbaar la budul jambar, jur na jàmbaar mm-hmm. kon jambar. Boy Niang jàmbaar. mi mais yow da ngaa kan jege armoire rek. waaw Mbaye loolu dafa la jaaxal yow. waaye Mbaye yow tamit së të të. Mbaye. man su su su ah comme. dellu naa sama kër ah foofu nga jóge de. Feeling Dakar. Ah. foo ma xamee. Eh? Feeling Dakar. dellu naa Feeling Dakar loolu dalaa yéem dalaa wala du noonu. mbay bu mu la yéem waaye lemal say kaakam. ah fan fan fu nekk nii nag kaa dafa am de parce que affaire diggante ay théâtre kat yi ñu ngi xanaa di pare li nga xanaa xanaa ma karta si yooyu tey. non loolu daal da ngay ba beneen yoon ñu wax ci. Ah. kat yan la. non non ay ñoom ñànku seen tara seen kooku feebar. waaw. Ah. ngi si rek di xuloo. waaw lu ñuy xuloo. ah waaw xaalis. xaalis. Mhm. ku feebar lu ñu ciy xuloo. dañ mm, xanaa dañ koo bëgg a doggali. dañ koy ketal ah ketal ah waaw théâtre kay ba mu commencé ba léegi chaque jour théâtre dañ koy ketal parce que joxuñu ko gëddam théâtre joxuñu ko gëddam waaw ku koy def moom boolewuñu la sax si artiste waaw chaque jour mën nañ la ketal Adamo di génn fii naa nañoo lekk xaalis bi waaw fii génn fii ne yóbbu nañ ko xaalis bi maire bi génn Adama moom temps yi bàyyi ko lu yiw lay dox quoi bàyyi na yiwal ah léegi nekkatul mbaam Ahmed Cissé mooy mbaam am si kay bàyyi na ah am na si se bàyyiwul de ah kaayee ko bàyyi. dafa dem ba ay duulam teew. loolu rek bàyyiwul de kaayee ko bàyyi. yaa ngi dégg Amérique ga mu nekk. naan fa la ñu njëkkee def lu ñaaw mu ñëw. mais Jimbo ne kon suba il faut ñu waxtaan parce que lii man. waaw il faut ñu tracer ne dañ laa dolli xaalis pour nga dem. booy del wax Jimboori Feeling Dakar. bu la kenn waxati ji Jimboori. xaw de Jimboori Feeling Dakar ñibbi naa daal sama kër. Jimboori liñ la yen liñ la yen xaalis liñ la yen bëri na kon. non yanuñu ma dara maa xool rek dellu sama kër gën ma dellu ma dellu sama kër. Ah. loolu rek mbay. waaw <laughs> ah, mbay yow. ah man de kontaan naa. <laughs> ah loolu dara incha allah suba maa ngi filim Dakar. <laughs>